dañ ko tàmbalee yéen a kaay giir wàllu côté yi dafa xëyee dellu siwaat ci lu jëm ci wàllu euh, kande tànneefu président Macky Sall mu jël si coalition Benno Bokk Yaakaar mhm. yéen gi ne moom président Macky ba fii daanaka euh, nanguta yëy yàbbi si lee euh, tax yéen gi xëy samp laaj bëgg xam lan moo tax président Macky Sall ba fii nangu la yëy yàbbi kanam war wax turu ki nga xam ni moo ko wutu ci ci coalition benn bokk yaakaar na la ko yéene kaay jot nañoo gisee xalifa général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké la ñu doon sàkku ci moom lenn la ko yéene kaay gii critique waaye yéene kaay euh, ci organisation élection présidentielle 2024 yi ñuy dëgmal euh, waaye yeewi askan wi nee nañu ab Antoine Félix Diome moom du ko organiser la bëgg mooy tànn leen koo xam ne moom nit nit ku neutre la koo xam

guide Sud Quotidien xëy dellu soit ci ndaje bi nga xam ne groupe parlementaire yu askan nañ ko am nit ki seq démb xibaar yi euh, wax nañu ci wàllu liberté yi nga xam dañ ko euh, dañ ko tey jamono ji waxee tamit ci patron euh, maanaam ci militant parti Pastef yi nga xam jamono ji ñu ngi leen di rëbb saa wax nañ ci cas Sonko ak ñi nga xam ay détenus politiques la ñu wax tamit ci élection présidentielle 2024 dañuy dégmal waaye bu ñu sukkandikoo ci biir waxee ci Macky Sall mi ne jamono ci intellectuel daanaka xaw nañ ko sànjaaxu xaw nañ ko ndar taxawal nañ nag daanaka ab parce que bu Felwine Sarr du tulli fii euh, ñoom kii euh, ñoom Serigne Diop ña ngay mbalax fa ci des euh, kàddu gi nag benn la ñoom ñëpp ñu ngi ñaaw lu jaay doole gi nga xam ne ni moom la fi président Macky Sall nekkee tax ñuy sàkk mu bàyyi Ousmane Sonko ak l' ensemble des détenus politiques noonu la ko yéen kaay gii di ci xëtam waaye moom ak moom mooy ki xam ne ko tuumal ne loxoom dafa taqee hmm. ci ñaawtef yu amoon ni ki fan yu génn gaa jàpp ne daanaka ay ay ay terroriste lañu hmm. Euh, dossier bi nag dañ ko criminalisé ah ñu ngi toll si ñaar fukki doomu adama ak ñeent ñoom ñëpp defeere nañ leen démb parquet mm-hmm. mu ngi ci yéen kaay gii di libération Abdoulaye yéen kaay geneen le soleil waaye yéen kaay gii di le euh, la woon kenn ki ab doomu la waaye ñu si mm-hmm. ñoo amoon yéene jóge fële ca Fass booy utali fële moo di ca euh, waaye mbir yi mujjuta ant Sénégal dafa suux ñu mujjee teer yi fële nga xam moo di ca Cap Vert fanweeri doomu adama ak juróom-ñett ñoo ci jota mucc mm-hmm. ñoom ñëpp eh, maanaam ñu dellu si waat nañ leen dem fi ci réew mi ñooñu ñi ca des nag am na si ñoo xam ne jébal nañ leen seen i ba ni tey sax ci lañ fas yéene jébal euh, seen i borom mm-hmm. euh, mbokk ba tey ji lañ leen di jébal seen i borom la ko yéene kaay gi di